Pathé doo am jingal yow tànk takkoo doo am jingal <laughs> ay ca euh, Pape Ndiaye euh, ñu fas yéene waxtaanee euh, thème bu am solo muy le voilà les nombres de détenus yi nga xamante ni ñu ngi ci biir kaso yi ñu bàyyi la nga daal di. waaw donc dañuy damay fàttali rek ci introduction bi wax ne def une catégorisation des prisons di wax ne fàttali ne Sénégal 37 prisons moo fi am muy fanweeri kaso ak juróom-ñaar. Mm-hmm. ci fanweeri kaso ak juróom-ñaar dafa am benn bu ci prison boo xamante benn bu ci nekk dafa am lu ko tax a jóg parce que am na ci yoo xamante ne ci biir 37 prisons yi dafa am 32 maisons d'arrêt et de correction. Mm. deux camps pénaux benn mm. maison de correction ak deux maisons d'arrêt. Mm-hmm. maison d'arrêt mooy prison yi nga xamante ne ñi ñu àtteegul kese ñoo fay nekk. ñi ñu àtteegul ñoo fay nekk mooy comme rëbës ak prison jigéen ñi nekk liberté 6. kon rëbës ñi fa nekk leen. rëbës du jël ku ñu ba pare du jël mineur du jël jigéen. mooy 100 mètres. mooy ñi fa nekk ñëpp ak ñu ñu fa mënta toog tamit waaw buñ la man nag damaa yaakaaroon ne damaa yaakaaroon ne ñi maanaam mais wala man ko yaakaar est-ce que ñu bëri yaakaarewuñ la fa dugalee mooy tëj ba atte mm-hmm. maison d'arrêt de correction de Rebeuss erreur la maison d'arrêt la ñi ñu attee gul ñoo fay nekk Rebeuss ku ñu atte ba pare doo fa toog mm-hmm. mineur du fa nekk jigéen du fa nekk Ah, képp ku ñu atte ba pare bàyyi la fa rek mooy courte peine yi ñoo xam ne ay 15 jours rek un mois ak yooyu noonu yu ndaw yooyu noonu ñooñu lañ fay bàyyi mais bu dul loolu moom ku ñu condamné dañ lay transférer yóbbu la camp pénal donc mm. maison d'arrêt mooy prison boo xam ne ñu ñu atteegul ñoo fay nekk rëbës maison d'arrêt la euh, prison jigéen ñi nekk liberté 6 maison d'arrêt la mm. boobu mooy première catégorie bi deuxième catégorie bi mooy camp pénal boo ko déggee mooy prison boo xam ne ñu ñu atte ba pare ñoo fay dem comme camp bu Liberté 6 ak camp pénal bu Koutal ñaari camp pénal yooyu moo am Sénégal. am na projet nag pour ñu tabaxaat yeneen. Mhm. troisième catégorie bi mooy maison d'arrêt et de correction. mooy maanaam bi nga xam ne ñëpp a fa daje mooy prison mixte rek. ñi ñu atteegul dañ fay nekk. ñi ñu atte ba pare dañ fay nekk. Mhm. jigéen ñi dañ fay nekk mineurs yi dañ fay nekk. Mhm. mais jigéen ñi dañuy am quartier spécial. dañuy jaxasoo de wala ñu leen di boole ci biir néeyi góor ak jigéen ne ñoom jigéen ñi la ñuy nekk. beneen bi nag mooy maison de correction maison de correction moom benn la fi muy seb hmm. prison bi nga xam ne moom mooy sebi xataan donc ci biir 37 prisons yi 8 yëpp Dakar la nekk Dakar moo ëppale prison région de Dakar am na 8 prisons yoo xamante ne mi ngi fi hmm. am na nag projet pour que ñu tabaxaat yeneen kaso parce que boo xoolee euh, Sénégal bañ jële moomee suñu bopp jëlee indépendance ba léegi comme ni ko ñëpp xamee tabaxuñ fi kaso bu bees hmm. prison te bu weesoo prison bu Saint-Louis prison bu Saint-Louis kese mooy prison bi nga xamante ne bañ ko doon tabax prison moo ko taxoon jóg yeneen yi ci des yëpp leneen la woon ñu transformé ko def ko prison boo jëlee Forbé armée coloniale foofu la doon denc seen armée yi nga jël Cap Manuel fa lañ daan denc lépreux yeeg gaana yeeg yi mhm. nga jël Rebeuss dara lu fas la woon nga jël prison bu Kaolack toolu ceeb la woon maanaam boobu boo ci jël rek ah. leneen la doonoon ñu transformé ko def ko prison mais bañ jëlee indépendance ba léegi moomuñ euh, tabaxuñ prison mais Sénégal daal benn kaso fi mas a tabax waaw nekk ndar mi ngi noonu mhm. parce ñoom nee nañ ku ci tabax ku ko tabax yaa cay ndëkk dugg te loolu moom c'est une fausse perception bu am parce amul ku mës xam nga Sénégal croyance yaa cay njëkk dugg nit ñi dañuy topp benn affaire di ko wax di ko wax di ko wax ba ñëpp gëm ko jàpp ne loolu dëgg la boo waxee ñu ne la duñ tabax prison parce que ku ko tabax yaa ci yaa ci njëkk a dugg. dañuy tabaxoon yeneen prison yi Sénégal amul ku a tabax ñu koy yóbbu fële. Tamba Mamadou Dia ban prison la fi tabaxoon. ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne prison daf ko bëggoon a tabax daa bëggoon a tabax prison boo xam ne daf ciy dugal Serigne Seck xaw euh, moo tax sax. Ah. ñu jàpp ko ba dugal ko kaso moom it. Mamadou Dia tabaxul prison bu mu dugg loolu amul Sénégal amul ku mës a tabax prison dugg ci mhm. Mhm. wallaay wallaay une fausse perception la boo xamante ni voilà mi ngi noonu moom mooy daw nii rek. depuis gouvernement bu ñëw da ngay ragal tabax. mi mi ngi noonu donc. parce prison bu Gorée sax amatul existé dañ ko tëj. Mhm. donc loolu idée la boo xamante ne ku deful loo tax ñu dugal la fa daal doo fa dugg. wala bu bu fekkente ne mais nag régime bi moom am na ñoo xam ne dañ fay dugg te defuñ dara. Mhm. loolu moom c'est une parce que nit prison dafa am la ñu def xamuñ ne lii yoon da koy tere ñu dugg fa boobu mooy première catégorie bi mm. deuxième catégorie am na ñoo xam ne ay innocent lañ dañ leen tuumaal jaay leen doole tëj leen ci kaso bi mmh. Mmh. troisième catégorie ren mooy ñi nga xamante ne nag ñoom dañu seen place foofu la dañoo def mmh. lu war a tax ñu ñetti catégorie personnes yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne nekk na si kaso bi mais Sénégal stigmatisation bi dafa gaaw ba parfois euh, même bu ñu la jugé setal la am na ñoo xam dañ lay tëdd kaso ñu àtte la setal la setal la mais terewul boo génnee ba léegi dañ lay xoolee bëtu kii kat moom Sénégal moom setal oh. ñoom dugg nga rek c'est fini pour ñoom ñoo ñu nan fexe ba nga dugg fa rek parce que xam na ne boo passé ba dugg rek hmm. sam der yàqu na boo tax mais jamono yu ñu toll nii hmm. at yu mujj yu ñu toll nii génération yi bi ñu toll nii hmm. dugg kaso moom yëkkati ko nit ki la may ko buzz jël exemple Karim Wade waaw fi toll nii léegi di daanu Karim Wade pratiquement nekkul woon ci xolu Sénégalais yëpp mais hmm. il aura ko bu dugg prison pour que Sénégalais yëpp parce que Sénégalais yi bëgguñu injure dañuy sot gis nga tey jii nii Macky Sall luñ koy mere mere mere ñaana luñ ko ko nag waaye bu ko si <laughs> non day yàgg rek waaye dina fa jaar. <laughs> Ah, wax wax ji kañ moom dagg leen ko ngeen denc ko. dina tëdd billaay. <laughs> wax su boobaa damay bañ leen après Macky dina xumb lool. te yor moo yor jikkoy gaynde koy bëgguñu koy néewal nit doole. bëgguñu ko xam naa li tax ñu boobu daal man ba léegi comprendre moom da ngay gis koo xam ne nit ñi dañ koy mere trop trop trop trop mais bu xasee bu dugg kaso rek mel ni mbir yi day ëlbatiku contraire sentiment contraire moom mais mais tamit li ci ëpp li ci ëpp xam nga ñaare dañ lay dañ lay tuumaan mbaa ñu sosal wala ñu tooñ la dugal la ci mhm. na nga seetlu sénégalais yi sotal la ñi ci ëpp mhm. la nga xamante ni loolu lan lay waxal bu ndee ba ci biir dañuy dem ba ci biir duñ ko gis mhm. xoola ay ñu ci bari ci ay kilifa yu fi jaar mën nga leen lim suñ demee ba ci biir dañuy buñ luñ ñu too dañuy dem ba ci biir gis ne su fekkonte ni bi ndey dañoo jëloon junni teg ko ci sa kaw. ba nga xam ne kenn xool yëpp mer nañ ci sax ñu jàppale dugal la bu ñu demee ba ci biir du gisati sax téeméer. wala ñaar fukk. bu ko defee xool yi dañuy wëlbati ko di la sotti parce que sénégalais bëggul kuy néewal nit doole. aywa. dama bëggoon naa. non dama dama dama. non non ça ça euh, bëggoon déjà am maanaam bu fekkoon mën na ne ah. mm-hmm. Euh, euh, bon cartographie yu bu bu bu prison yu Sénégal moom yàgg nga ñu ko jox quoi. Mhm. mais maanaam ban prison moo ëppale ay détenus. Mhm. et ñooñu noonu lépp lu ci ëpp lan lañ leen di toppee au Sénégal. prison bi ëpp détenu mooy rëbës. boo doon def <laughs> une classification waaw. une classification des prisons les plus peuplées maanaam kaso yi gën a fees Sénégal ëpp nit. tête de liste rëbës nga fay teg. Mhm. est-ce que. la plus de 2000 détenus ña nga fa. te capacité am te capacité am. na ko ba yàgg 1600. la waaw au mais après dañ fa réfectionné tabax fa ay chambres yu bees ba capacité bi yéeg ba 1600. Mhm. les la dépassé na plus de 2000. Mhm. te prison bu dépassé nombre de euh, détenus xam nga lan moo ci garaaw. état bu lay jox budget prison day xool capacité bi fa mu yem mu jox la budget wu lekku 1600 détenus boo ko état du la jox budget bi looloo ci garaaw. waaw lii loolu tamit. loolu mooy mbir par exemple boo jëlee camp pénal bu Liberté 6. capacité am 800 détenus. waaw léegi état bu koy jox budget budget 800 la koy jox. léegi la cee tegu lépp ci ay détenus loolu. yaa xam ne luñ leen jox moo tax lekk gi parfois di xaw a lan moo tax état tamit mënut a def en sorte que ne def contrôle bu mat sëkk ci ne bu amee lim bi fa war a nekk. ñu arrêté xool ñeneen ñi ci des fan lañ leen yóbbu ak nu ñuy def ak ñoom. loolu problème la te a ëppal dinaa ci ñëw <laughs> mandat de dépôt yu bëri yi quoi <laughs> donc bon bu du état sax état xam nga bu ñu nee état sax day yaatu mais ñi yóbbu kaso nit xam nañ leen mooy procureur yi ak juge d'instruction yi parfois ñoom ñoo xaw a wa wàññi seen loxo quoi mm. xam nga Sénégal moom caakare ma gënal soow tëj nañ la kaso cere ji saf na laalo saful laalo yóbbu nañ la ci kaso ba parfois nga gis ci ay cas yu ñàkk fayda yoo xam dañ ci yóbbu ne kaso boo toogee ci plateau wax ko dañ laan du dëgg mhm. mais man xam nga fan moo mooma jaaxal mhm. mbir yu ñàkk fayda au lieu que l'État raisonne en terme de de nombre de dossiers yu ñu xamee ne que dugg na ci euh, euh, euh, administration pénitentiaire mhm. muy raisonner en matière de quintessence quoi contenu bi war a mën a kii loolu loolu contradiction la de cest à le nombre de dossiers yi nga xamee ne que tëj nañ leen ba pare mu jaar si loxo yi administration pénitentiaire mhm. ci loolu la ñu waroon sukkas na ko pour joxe lekk gu xamee ne que gu gu gu doy la. te boo xoolee prison yi yi li ëpp ci prison yi sax dépassé nañ seen capacité xam nga kon moom moo tax administration pénitentiaire di am yenn jafe-jafe yi pour dundal détenu yi lekk bu bu bu baax 100 pour cent comme bi ngay lekkee sa kër nga mun ko fa am donc la doon wax léegi classification de liste. Mhm. boo paree ci Thiès. prison bu Thiès tam prison bu mag la. Mhm. après nag yeneen yi soog a ay Kaolack ak Ziguinchor Saint-Louis ak yeneen ak yeneen mais Rebeuss moom mooy tête de liste moom ci prison bi. gën a gën a fees Sénégal. Pape Pape bu dee da liggéey. bu dee da liggéey bu fekkente ne da liggéey ci parce que am na lu ñu tuddee ah, travail pénitentiaire. bu fekkente ne da liggéey am na lu ñu lay fay. léegi nag fay boobu dañ koy xaaj ñetti xaaj am na boo xamante ne la koy dencal ba ba ngay génn ñu jox la ko uh-huh. beneen partie bi day dellu ci keesu état uh-huh. beneen partie bi dañ la koy jox nga jëfandikoo ko ci kaso bi moo tax am na pri détenu yoo xam ñu lay dagg am nga possibilité demander de bind pour que muy dem ci sa famille am na ñoo xam ne ñi ngi biir prison yoon téye leen caabi fete leen ginnaaw ñu dog ay buumu gàcce seen kër di joxe dépense Pape léegi wax ko nee nga situation bi tax mu dem prison est-ce que loolu day wane en réalité euh, problème la am ak nit ki. waaw xam nga xam nga li ci ëpp am na ci loo xamante ne bëgg tëj la rek parce que man mënuma comprendre tëj nit kaso pour caraxu téeméer man mënuma ko comprendre tëj nit kaso non ay moo tax ma ne la ay mbir yu ñàkk feddal yoo xamante mais ñi ñi may seetaan xam nañ li may wax yu yi may wax ni yëpp maa ci teg sa mbët kenn nettaliwu ma mm-hmm. mbir yu ñàkk fayda ay caraxu téeméer ay sàcc pigeon mille cinq cent mbir yu yoo xamante ne bu ñu la ko waxee nii sax doo ko gëm. gis naa koo xamante ne xale boo xam ne li ñu ko yóbboo kaso mooy benn ndaw si la fël portable bi daanu protège bi yàqu. protège mooy loolu ñuy lal ci kaw téléphone. loolu yàqu ñun noonu ko tëjee kaso. xam nga xam nga la plupart lu koy andi. def naa jeudi passé xaw ma. Euh, yaa ngi koy wax mooy euh, ñi nga xam ne dañu am bras long. Mhm. romb coro ne ko xool ko xool bu ko neexu rek coro ne la dinaa la tëj lu léegi. Mhm. di ko nga ah, def kaf nga def kaf mu def dëgg. mu def dëgg ba dugal la ci kaso jaay doole bu métti jaay doole paate mi ngi am na lu ma laaj léegi te tontu ci lan mooy yóbbu nit kaso maanaam bër bi la ñuy day dépendre ndax góor la wala jigéen wala mineur parce que mhm. ñetti catégorie yëpp li leen di yóbbu kasu bokkul mhm. Mhm. boo jëlee jigéen ñi boo xoolee les principales causes d'incarcération chez les femmes maanaam li ëpp ci li ñu leen di li yóbbu prison ñetti mbir la trafic de drogue avortement ak li nga xamante ni moom mooy infanticide infanticide mooy nga jur doom rey ko waaw mais foofu dañuy gëstu xool est-ce que xale bi bi muy jund indaaneel na bakkan am na ci jigéen ñoo xam ne dañ la naan no xale bi day judd rek ñu suul bu ñu leen laajoo ñu ne non dafa judd indaalewul bakkan mm-hmm. donc foofu noonu ñuy ñuy même bu fekkente ne xale bi nga jur indaalewul bakkan suul balaa nga koo def da ngay am autorisation suul nit te amoo autorisation délit la dama koy mm-hmm. mooy inhumation sans autorisation administrative suul te amoo autorisation délit la dafa am ñaari façon autorisation yu ñu suul bu dee moor naturelle des normal ca mairie bi ngay dem ñu jox la lu ñu tuddee permis d'inhumer dëgg la bu dee koo xamante ne dañ koo rey wala ci meurtre wala mu amoon enquête boobu permis mairie mënatul joxe kayit bi certificat aux fins d'inhumer la ñuy joxe te boobu procureur ak commissaire ñoom ñaar ñëpp ko war a signer pour que nga mën a am autorisation mais boo suulee te amul kayit police am mun am na yoon sañ-sañ ñëw sulli ko ñu yóbbu ko def autopsie parce que dañuy supposer ko voilà am na loo def ba bëgg ko làq pour pour pour suul ko mm-hmm. donc chez les euh, la infanticide avortement parce que avortement li ci loi bi wax fi toll nii avortement loi bi day tere ku ko def maanaam biir yàq. loi bi daf koy tere lu dul ne buñ ko deful bu dee ku ndaw si buñ bu ñu yàqul ëmb bi femme bi day dee. Mm-hmm. procureur soo ko autorisé. bokkut loolu ab projet la rek. protocole de Maputo moo ko prévoir benn convention la. bu Sénégal signé. mais bu dee tey mais dëppale ko ak suñu loi. li xew ci famille maanaam.

ëmb boo xam ne dafa jóge ci viol wala ci inceste boobu lay wax ni euh, loolu la protocole wax Sénégal nag signé na convention protocole bi mm-hmm. mais harmoniser guñ ko ak suñuy loi nationale mm-hmm. donc foofu la foofu la coow li nekk mm-hmm. parce que yi ñu bëri dañu gis ne loolu bu ñu ko fi defee liberté lay ku jug dem kii mais sa protocole ak ñàkk protocole moom gars yi ni ñu ko bëgg a yàqee ñu ngi koy yàqee bu dul ci bi médecine moderne bi di bi traditionnelle bi rek gars yi moom xam nga ne am nañu seen i pexe yoo xamante ne moom léegi kon ñu ñëw ci nombre de détenus yi femmes hommes ak mineurs yi ci kaso waaw donc euh, bon beneen bi ma ci dool ci cause d'incarcération bu dee ci mineurs yi moom sàcc gi moo ci ëpp ak yam tox tox mi moom moom moo ëpp ci liñ leen di bu dee ci mag ñi nag moom façon délit yu bëri dañ ko fay fekk yëpp dañ ko fay fekk trafic de drogue bi sàcc bi problème mu suuf ak yooyu yëpp ak lu jëm ci wàllum xaalis donc yooyu yëpp bokk na ci cause d'incarcération yi waaw problème suuf bi nag moom xam naa bis na jot nga andi ko quoi waaw kooku moom moom mënu kooku moom spécial la bëri problème trop ak miiras miiras tam bëri problème Sénégal trop booboo moom beneen affaire la booboo <laughs> donc fii ñu toog di wax ak yéen douze mille quatre cent trente détenus ñoo nekk ci trente sept prisons yi mboolem prisonnier Sénégal yëpp seen lim mi ngi toll ci douze mille douze mille quatre cent trente trente ñi ngi atte ba pare mooy condamné yi seen lim mi ngi toll ci six mille quatre cent quarante trois d'accord bu dee détenu provisoire mooy ñi ñu atteegul ñi ne ci kaso yi te atteeguñ leen seen lim mi ngi toll ci cinq mille neuf cent quatre bu dee jigéen ñi 320 lañu 300 jigi femmes ñoo nekk ci 37 prisons Sénégal mineurs yi ñu ngi ci 317 étrangers yi ñu ngi ci 1630. femmes yi bëriwul mais boo defee comparaison entre parce que décembre joxe woon naa fi ay statistiques. Mhm. tey joxe war naa statistique booy def comparaison da ngay gis ne ñi ñu àtte dañu wàññeeku parce que décembre. huit mille cent vingt quatre détenus lañ atte woon te tey jii nii ñi ngi atte six mille quatre cent quarante trois hmm. da ngay gis ne aussi ñi ci kaso bi te attee guñu lim dafa gën a yokk dafa gën a yokk parce que décembre mi ngi toll woon ci cinq mille quatre cent trente sept fi ñu toll nii mi ngi toll ci cinq mille neuf cent quatre yoo xam ni ñi ngi toog fii. di xaar ñu àtte leen. Mhm. Mhm. presque juróomi junni jur ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk yu tegal juróom-ñaar. Mhm. détenus yoo xamante ni ñi ngi toog ci kaso bi di xaar seen àtte. li koy waral nag bëri na. yéexaay bi maanaam ci kaso yëpp yëpp ci 37 prison yëpp. dossiers yi rek. ñii toog 7 ans 10 ans 6 ans 5 ans atteeguñu leen nag donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante moom mooy waral yéexaay bi te loolu vraiment problème la boo xamante ne ñu dugg mukk di ci insister muy longue détention yi ñuy ñiy téye ci kaso bi lu yàgg te duñu leen atte mm-hmm. te longue détention saa yu ñu koy wax mm-hmm. ci góor ñi la ñuy gën a insisté jigéen ñi tamit daf leen di dal jigéen ñi war nañ leen gën a euh, taxawwaat bu baax a baax a baax ndax ci am na ci ñoo xam ne ñi ngi prison am jafe-jafe ak yoon amuñu avocat mm-hmm. bu leen taxaw mm-hmm. maanaam ni ñi leen taxaw war a taxaw dëggantaan dafa des bu baax a baax a baax a a baax ñoom jigéen ñi ak tamit mineurs yi parce que man damaa jàpp ne pour man mineur place am du prison. parce que boo demee dugg prison boo fa defee visite sax nga xool mineurs ni ñuy nekkee benn problème bi mooy mineurs yi ñu tëj prison amul biir kaso lu leen di ragalloo ba duñ fi sañ ñëwaat. Mhm. moo tax mineurs yi dafa bëri ci ñoom ay récidivistes. Hmm. muy benn. Mhm. deuxièmement. Mhm. mënuma comprendre mineur nga tëj ko kaso. muy bokk ak jotaay ak ay mag majeur ñoo xam ne dañu leen di jiiñ ne dañoo rey nit. Hmm. dañu leen di jiiñ ne dañoo def lii dañoo dañoo def laa ñooñu nga boole leen ak mineur ñuy am possibilité di toog di waxtaan di di lëkkaloo man loolu mënuma ko comprendre. même ñu bokkul chambre. c'est vrai que mineur ak majeur du ñu bokk chambre. mais bu ñu génnee cour ñooy tase ci biir cour possibilité daje ci cour bi donc loolu mënu ma ko comprendre mineur xale bu ndaw 13 ans 14 ans xale yu ndaw ñu boole noonu nag ay ay ñoo xamante ne voilà quoi ah, mais je crois que mineurs yi ça pose problème je crois que mineurs yi forbe lañ leen di euh, forbe mais du forbe kese parce que foofu dafa dafa dépassé capacité Sénégal moom prison yi ci ëpp fees fa demee da nga fay fekk mineur rëbës à un moment donné amoon na ay mineur même bu dee jagle woon nañ lañ chambre ak yeneen kaso yi ne fii yëpp mais loolu c'est une violation notoire de de des droits de l'enfance non man moom damaa jàpp ne mineur place am du kaso waroon nañu xool yeneen solution wala boog buñ ko yóbbu mënta jàpp bu ñëw kaso kat mu nekk vraiment lu garaaw a garaaw loo xam ne jar naa bon heureusement sax ba léegi mineurs yi bu ñu leen tëjee kaso am nañ possibilité ñu yeggali seen jàng mhm. ci biir min euh, prison bi ah ab jàngal waa dafay ñëw boo xam ne dañu leen di may ñu oh. yeggali seen jàng mën leen a évaluer mais loolu ni ñu ko defalee mineur dañ ko war a defal majeur yi parce que ki nga xam ne étudiant la wala da doon jàng nekk ci cursus nekk ci yoon ñu tëj ko kaso mais war nga ko may possibilité mu génn def def examen mais bu ñu boo waroon def composition doo ko defi léppay dagg léppay arrêté. Ah, te amaana sax liñ liñ la tuumaal wala liñ la jiiñ. suñ la attee ne la defoo mën nañ la setal. te même problème boobu moo am ci ñi jiiñ affaire drogue mooy trafic mm-hmm. euh, toxicomanie yi. Mm-hmm. koo xamante ne dafa yàgg jël drogue ay année année année année. Mm-hmm. nga xëy rek tëj ko kasu sevrage brutal. mais loolu mën na ko rey. dafa war a am accompagnement boo xam ne dañ koy dimbali ba dindi dépendance mais ñun xëy rek ràpp ci kaso bi te ku ci ku tàmm drogué tàmm pikiiru tàkk tàmm gens tàmm lépp kooku bu xëyee rek dee yaa ko rey. Mhm. dafa war am accompagnement pour que ñu xool naka la ñuy dindee dépendance bi ci moom. mais mineur mineur di toppee. mineur yi. Mhm. mineur yi sàcc ci la bokk. Mhm. wàllum xeex ci la bokk. ak tamit lu jëm ci wàllum tux donc surtout sàcc bi boo première cause d'incarcération chez les moom mooy sàcc gi. c'est-à-dire que ah. en fait je pense que ci banlieue bi amoon na benn centre boo xamee ne moom lañ doon euh, euh, euh, jël ñi nga xamee ne. dañoo dem ba accro ba accro ci wàllu drogue. merci beaucoup Jacques Chirac je pense foofu la. Mm-hmm. donc je pense que yoon la aussi que ñii nga xamee ne que yàlla daf leen nattoo ñu ñu ñu ñu accro ci drogue. Mm-hmm. xam nga que partenariat am entre donc le centre ak ak ak prison yooyu. cest à que au mm-hmm. moins chaque semaine ñu ñëw defal leen ay ñu koy waxee euh, euh, désintox désintoxication désintoxication gi nga xam ne que souvent xam nga tux mu bëri bi moo la koy jox. wala wala ñii di piqûre yu demee noonu. mais bàyyi leen foofu comme li nga wax tout à l'heure xam nga bëri na nit ñu nga xamee ne que. Mhm. loolu daf leen di dofloo. c'est-à-dire suñu suñu toogee non jamono bu ñu ko waroon jël te jëluñu ko. c'est-à-dire beneen nit la ñuy nekk merci beaucoup c'est le terme dañuy sikk. beneen nit la ñuy nekk cest à nerveux et puis duñu mu dégg loo leen mën a wax. dañuy nerveux di di déconné ci. merci beaucoup mais mais mais loolu dimbali. te boobu noonu dalul kese doon tox de. Mm-hmm. mais même ñi nga xamante ne dañuy yàgg ci kaso bi. Oh. ñoo xamante ne par exemple marié la ñu woon yàgg ci kaso bi. Oh. moo tax ñenn ñi di proposer mu am visite conjugale. Ah.

ndekete soxna si daa ñëwoon pour ñaan ko baat ne ko kat jéggal ma oh. man mënuma laa xaar oh. damaa bëgg jur ay doom vraiment mënuma laa xaar oh. mu delluwaat ak ay jooyam ñu ci bari ci détenu yi seen jabar yi dañuy ñaan baat mais noonu la amee tam jigéen ñu gore ñoo xam ne ñi ngi toog di xaar seen borom kër man xam naa ci ay jigéen yoo xam ne am na ci par exemple boo jëlee Sénégal ci 37 prison Sénégal fii ma toog di waxee ki gën a yàgg ci kaso bi def na 19 ans ci prison bi mais soxnaam ba léegi mi ngi toog di ko xaar imagine 19 ans jabaram toog di ko xaar te kañ nañ ko fas euh, nee mi ngi toog di ko xaar xanaa dafa dafa rayoon googu la wàllu rey nit la jabar ji toog di ko xaar yàlla na yàlla def ak ñeneen ak ñeneen ah, ak ñeneen ñoo xam ne def nañu sept ans dix ans am na ci jigéen ñu gore nag ñoo xam ne dañuy toog même bu ñuy dugg ménopause sax dañuy dugg ménopause mm-hmm, mm-hmm. man xam naa si benn jabaru détenu boo xam ne détenu bi bañ koy jàpp jabar ji dafa biiroon doom ji judd ci ginnaawam faatuwaat ci ginnaawam xam nga kon jabar ji fi ñu toll ni amul doom mm-hmm. te jëkkër jaa ngi ci kaso bi moom gisul doom ji waaw mosu ko gis xamu ko sax oh. te jabar ji nee du bouger mètre foofu lay toog xaar ko même bu dee buy génn day tombé mu dugg ménopause day toog xaar ko mm-hmm. moo tax am na jigéen ñu gore ñoo xam ne ñi ngi vraiment oyofal natt bi seen borom kër te loolu lu am solo la oh. mm-hmm. lu gën a am solo ci moom visite lu jëm na ci yoo xam ne duñu am visite gis nga détenu sa mbokk yi nekk si biti ñëw visiter loolu da lay soulager Hmm. day oyofal lu bëree bëri bëri nattu bi doog. boo koy oyofal dañuy dégg naan détenu yi nga xam ne ñoom ñooy ëpp ay visite hmm. maanaam day am impact bu muy indi ci diggante ñoom ak garde pénitentiaire yi dina yombal seen dossier ñu gaaw ko xool ak yeneen yu ni mel parce que dañ koy déglu ci bari bari bu nit demee kaso nañ koy seeti na ko ay mbokkam di seet ay jegeñaaleem hmm. parce que dina yombal dossier ñu koy saytu ndax dañuy xam ne amal na société njariñ waaw ak ki nga seet lu bari waaw xam nga xam déjà euh, ki nga xamante bu fekkente ne yow am na nit ñi nu ñu lay seetsee degré bi bëri parce tribunal la joxe fa ñuy joxe permis bu fekkente ne mhm. mhm. dossier bi dafa nekk instruction am na fu ñu koy wutee donc ñetti catégorie ñetti euh, wutukaayu permis la mhm. bu dee dossier bi dafa nekk instruction juge bi mooy da ñëw juge bi jox la permis nga dem ci greffier bi ñu defaral la permis mais foofu am na nu visite yi bëree ak ay kilifa di la seet yi dinañ xam ni ku am njëriñ ci société bi voilà donc am na noo xamante ni mën na peut-être mën nañ ko mën nañ la ko mën nañ la ko mën nañ ko taxaw say say kii quoi mais directement moom amul benn impact hmm. mais indirectement mën na am impact ci li nga xamante moom mooy dossier bi ak taxawaay bi nga xamante ne moom moo moom moo war a am. Mhm. a nekk loolu par parfois parfois ñu tëj nit fi prison bu nekk Dakar alors que say mbokk ña nga Tamba wala Kaolack déplacement bi du yomb ci ñoom lu ñooy loolu tamit day am te ñoom ñooy gën a sonn parce que ñooñu lekk kaso bi la lekk duñu am mm. possibilité ñu indil leen ci lekk yu neex yeeg fruits yu yeeg affaire yooyu noonu quoi mm-hmm. mais bu dee bu dee étranger mm-hmm. par exemple est-ce que dina am possibilité pour mbokkam yi nga xam ne ñoo nekk ci meneen réew ma mm-hmm. xam ne moom tëj nañ ko fii kaso def na fi sàngam wala nangam bañ mën koo taxaw pour mu génn ak yooyu xam nga dafa am sax lu ñu tuddee coopération judiciaire maanaam sénégalais yi ñu tëj bitim am nañ possibilité ñoom ñu ñëw tëdd fii seen kaso biir Sénégal de la même manière également Sénégal euh, doxandéem yi étranger yi ñu tëj fii mm-hmm. mën nañu dem tëddi seen kaso seen dëkk ba ñu jógee mais ci kaw bu dee coopération judiciaire am na diggante Sénégal ak réew bu ko réew ma sàkkoo loolu lu mën a am la mm-hmm. te sax tey am na ñu gis ñëpp xam nga maa ngi lay jox léegi euh, li mu étranger mille cent trente étranger ñu ngi ci kaso yi te ñoo ñëpp état mi ngi leen di dundal ñooñu bu ñu leen delloo woon seen dëkk amaana mille places yooyu xaj na ci dëj xaj na feneen budget boobu xaalis boobu xaj na feneen place yooyu xaj na feneen libéré dara dëgg tam beneen mbir la man pour man étranger yi téye leen fii ñuy feesal kaso yi boo fa bu ma la jàppee ngay def lu yoon tere dama lay refoulé sa dëkk fichier la dootoo fi dugg mënatoo jaar aéroport mënatoo jaar fenn mais ci côté boobu moom mhm. nañ ma baal ci kàddu gi mais amul di dàq nga ñëw dugg senegal ñu fat la buñ jógee naan réew teraanga wéy tëj suñu mm. frontières yi ne ko yàmbalan ku jot dugg mais loolu ça pose <laughs> ñuy di wër seen réew ku ñu dàq sa réew nga ñëw dugg Sénégal ku sa mm. justice di wër pour condamner la nga ñëw dugg Sénégal mm-hmm. ku def délit wala crime yi gën a mag ci sa réew ñëw dugg Sénégal boo waxee ñu ne wéy intégration africaine dëkkum teraanga la tëjji suñu frontière yi ku jot dugg. yàlla boo détourné ay milliards. mës ngeen circuler mës ngeen dem frontière ci pays limitrophe yi dem naa fa gis ngeen ni mu mel. Ah, man kay ma dem amul contrôle zéro. am na ñoo xam ne da ngay dox ak sa tànk dugg. non mais frontière man mais ça man dem naa ci benn frontière. Mhm. man am na ñaari frontière réew yu ma dem man personnellement. Mhm. mais gis naa ne moom dugg moom wax dëgg yàlla yomb na. Sénégal am na ñoo xam ne dañ bu ñu bu ñëwee bay bay jubat dañuy wàcc dox ak seen tànk. Mhm. wiir yi ñëw dugg. duggaat dem na. man bi ma gisee frontière diggante senegal ak Guinée-Bissau man dama tiit. amul contrôle. <laughs> boobu a wax ko war a contrôlé na la la ñuy toog teg seen ataaya di naan seen ataaya lijjanti dara. dëgg la seen yoon nekku si. ci ngay comprendre lu bëri. Ah, dugg def fi la yoon tere daw dugg beneen dëkk da lay yomb. dëgg mhm. feneen ñëw dugg si am na ci dëkk gis nga boo jëlee Maurit ak Gambie. Mhm. Gambie boo yorul carte doo fa dugg. doo fa dugg Gambie boo yorul argent de poche. dugg doo fa dugg Gambie Mauritanie dama leen a faaman. Guinée Conakry Guinée

c'est ça waaw ak ñu fee bëri bëri nañ fi te pourtant loi bi ni loi bi di exiger xam nga policier bu ñu lay ramasser yoroo carte dañ lay yóbbu mhm. yow sénégalais bi fi dëkk ni ñu lay exiger booy dem boutique ba wala ngay toog sa buntu kër sax da war a yor sa carte mhm. étranger noonu la war a yoree permis de séjour boo ko yorul dañ laa war ñàkk yor permis de séjour délit la irrégulier délit la dañu la war a tëj ci kaso bi wala ñu refoulé ah, mais Sénégal moom contrôle zéro. suñu frontières yi moom. Mhm. xaw kañ la am ministre de l' intérieur vraiment bu bu bu bu raxas dëkk bi ah, dëkk bi dañ ko war a raxas de. Mhm. Ah, du question de. du racisme du racisme wala xénophobie wala dara. waaye da ngay gis ne dëkk gis ne yow soo dëkkee Sénégal yow nga jóge Sénégal dem ci meneen réew. Mhm. da ngay am coono. jógal fi nga dem Gambie waxee léegi parce que man gis naa am na ñu ma xam ñoo xam dañuy jóge fii di dem di ay Mauritanie wala Gambie wala ay Maroc wala ay nangam wala ay nangam. Mhm. mais dangay gis ne ci ay ci ay teguwaay yu leer naññ. ngay tegu par force doo ko dem ci réew moom doo faa mën a dox. doo faa mën a nekk. Mhm. sinon du am nga gis ne fii c'est le contraire. mais Pape bëggoon naa tuuti mhm. rek ñu ñëwaat avant waxtu bi di ñu xoj ci cas détenu yi nga xamante ni kenn jugé wu leen. tey jii ñoom nan la ñu wax a def ba nga xamante ni seen dossier dina xaw a bouger tuuti. waaw li ñu mën a def mooy bu fekkente ne am nañu avocat seen avocat taxaw ci dossier bi parce que bu fekkente ni délit lañ lay toppee délit téye bi ñu lay téye laata ñu lay atte mënta weesu 6 mois foofu moom loi bi réglé na ko mais bu dee crime la foofu amul limite loolu nag moom moo tax dossier yi di yàgg dossier yi day yàgg trop bo juge itam doyuñu parce que boo xoolee crime yi du juge yi koy saytu dafa am ñoom lañu ñu tuddee juge d'instruction Dakar 10 rek moo ci am boo jëlee tribunal bu Dakar 10 rek mhm. te kenn ku ci nekk yaa ngi ay 200 300 dossiers. Mhm. le nouveau doyen des juges bi remplacé Samba Sall ba mu ñëwee 800 dossiers la fekk ci table bi. 800 mhm. kañ la koy pare. mais nag mi ngi ciy góorgóorlu lu ma mën man loolu sedd naa ko. dossiers yu bëri yu bloqué woon. yoo xamante ne ancien procureur bi fi nekkoon ak ancien doyen des juges ñoo bloqué woon dossier bi mhm. dossier yu bëri ñu woon kii ku bees ki fi nekk nii l'actuel doyen ba mu ñëwee lu ci bëri ngi koy diligenté gis naa ñu bëri ñoo ñii ñu leen di may liberté provisoire ñii woon nañ leen auditionnel pour la am na ci ñoo xam ne defoon nañu cinq ans ci kaso musuñ leen woo audition musuñ leen woo enquête ba doyen des juges bu nit yu wérul yi nekk ci kas euh, ci kaso bi seen lim dafa takku te loolu tam xam naa dinaa si mos a invité Ansoumana Dione war na ci wax mhm. am na ci détenu boo xam ne kaaw Ablaye Cissé laay jël mhm. boo xam ne ko taxawee ci kanam juge pour ñu àtte comme ni ko yaayam juree woon juge yaa ngi may seede administration pénitentiaire ñi ngi may seede kaaw ndeysaan après camp lañ ko tëjoon sax mu mujjee faatu yàlla na ko yàlla yërëm bu ñu ko oh. indee ci biir jour bi ñu koy àtte tribunal dafa summeeku comme ni ko yaayam juree woon. lan la defoon ba ñu téye ko. meurtre benn waay la la dañ ko doon jiñ ne dafa rayoon benn mbokkam Grand Yoff. biir kaso bi. day dem ginnaaw kooku lan lay def ci kaso bi. moo jaaxal kooku place am du prison. yii nag moo bëri ci kaso bi feesal ko. boo déggee tey ñu naan kaso yi fees na lii moo ko feesal. boo doon xool limu dof yi nekk ci kaso bi kenn xamul seen lim nu mu toll. kenn xamul seen lim nu mu toll. te ñooñu ñëpp dañu leen war a appliquer article article cinquante mooy bii wax ni dof bu la rey yaa perte il n'y a ni crime ni délit mhm. lorsque le prévenu était en état de démence au de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à il n'a pu résister lépp loo def loo xam ne yoon da koy tere te jamono ya nga koy def àndoo sa xel wala ñu forcer la ba sañoo bañ yoon du la ko toppee da am lu ñu tuddee irresponsabilité pénale mhm. moo tax ñu ne dof bu la reyee yaa perte waaye yow it boo ko reyee dugg kaso parce que yow am sa xel mi moytul amul noonu noonu man guerrier ñi nga xamante ni je pense que am na ci prison yi am na effectivement ay handicapé la na trop parce que xam nga infrastructure bi prévoir ñu nu anam yoo xamante Sénégal moom côté humanisme bi maanaam yërmande gi dafa des ci kaso bi. jigéen day ëmb ba diis ñu jël tëj la ci kaso bi sans état d'âme. am na ci ñoo xam ne kaso ñu ngi war wasinee ci kaso bi ah. Mm-hmm. te boo fa wasinee xale bi da nga ko fay téye tant que amul ñetti at amoo oh. ko mu dem ci ay mbokkam. mais di nga am da nga koy téye di nga am ku la assisté dañ lay yóbbu ci biir kaso bi fa ngay nàmpalee fa ngay ci biir kaso bi xale bi dañ koy téye ci biir kaso bi ma ni la fa tëdd comme yow day tëdd kaso par force comme yow. te moom deful dara. tant que amul ñetti at. Mm-hmm. mënoo ko génnee pour say mbokk dem te euh, kéwal la ko. te moom deful dara. te deful dara donc lii yëpp ay mbir la yoo xam ne vraiment. Mm-hmm. mais mais mais Pape moom yéen man yenn saa yi ngay wax sunu loi bi ba ci man. dama am lu ma loo xam ne dafa xaw a jaaxal quoi. bu ñuy xool ci dëkk yi nga xamee ne que moom la ñuy copier seen ay mbir dañ lay wax automatiquement que ni donc boo xasee ba ba ba ba en tout cas ñu ñu ñu téye la rek. foofu état dafa mhm. war a affecté donc euh, euh, avocat d'office mhm. pour mu taxaw la coytu say say say say mbir

bu dee crime lañ koy toppee moom bu ci sonn sa bopp état da koy jëlal avocat par force bu dee délit la da ngay bind assistance judiciaire mm-hmm. pour que ñooñu jëlal ko fayal ko avocat parce que chaque année état bi dafay joxe budget pour ñi amul avocat ñu mën leen a fayal avocat loolu tam lu jar xam la nit ñi nit ñi di fa di fa di fa dem mais daal may insister ci jigéen ñi mhm. ñu gën leen taxaw gën a accélérer seen dossier parce que elles sont victimes de longue détention mhm. Mhm. di insister ci mineurs yi parce que mineur place am du kaso di insister également ci dof yi ne ci biir kaso bi parce que seen place du du du du du kaso bi nañu Mm-hmm. këyitu docteur buy wane ni mais kayit vrai de waxuma ñi nga xam ni dañuy am jafe-jafe yoon def lu la neex <laughs> wuti këyit buy wane ni wéroo ñu mën laa génne bëri na ci de am na fi mm-hmm. mais vraiment limu ñi ñu wérul ñu ne ci kaso bi xam nañ leen bu baax a baax am na ci ñoo xam ne fa la leen di dalee am na ci ñoo xam ne ci biti la leen dalee ñu jël dugal la ci kaso bi man ñooñu dama naa sax ñii enquête nan la ñu def ba poser leen question ba defar PV. Mm-hmm. ba defeere leen ci koo xamante ni. nga maam mu doon ay euh, question yu doy waa vraiment Sénégal daal mi ngi nii rek waaye on espère vraiment seen ay conditions maanaam conditions détenus dinañ ko xoolaat bu baax a baax ak du ci mënta nekk ay nit lañ te dañoo am seen ay ak ak seen euh, yelleef mi ngi noonu pam Ndiaye ñu jaajëfal la bu baax a baax. ci thème bu am solo bi. maa ngi lay jaajëfal li may li may tàggatoo daal du lenn lu dul lu jëm ci wàllum grâce. dama doon waxtaan nag euh, sama benn un doyen de la presse doyen Ablaye Dabo. Euh, mhm. yaakaar naa ne xam ngeen ko bu baax a baax. ci waxtaan bi li ñu doon waxtaan dafa ne occasion parce que président de la république quatre occasion kese lay maye grâce. Mhm. Korité tabaski tabaski. avril ak at bu bees bi nee na. 8 mhm. mars doyen Ablaye Dabo moo ko proposé nee na mars. président de la république daf ko war a boole ci occasion yi muy gracier jigéen ñi. ñu defal ko exclusivement pour jigéen ñi leen di gracier chaque 8 mars président jël décision ne day gracier.